analyste ngeen. mën ngeen interroger statistiques yi. Mm. ba ci dernier conseil des ministres bi ci douze nominations wala une vingtaine benn jigéen la ñu nommé koy félicité nommé ko recteur université bu Sine Saloum. Mm-hmm. donc boo xoolee ci ay trente nominations ñu buruxal benn jigéen. Mm-hmm. alors que. constitution dafa ne égal accès au mandat et aux fonctions pour ñun nomination yi warul tegu ci politique la warul tegu ci yenn yi mais dafa war a tegu ci ni ñu xool ni tey mënuñu amuñu raison pour ni on n'a pas de femmes à nommer mhm. on a des femmes à nommer bien évidemment loolu ñu ci ñaax autorité publique ba ci gouvernement bi dafa dellu ginnaaw mhm. dañu ëppi annoncé woon ci gouvernement bi ni vingt cinq pour cent de femmes mais boo ko xoolee dellu wax na ginnaaw motul mhm. sax ni parce que amoon bu ñu joxoon une Euh, euh, euh, élevage ak xaw ma lan animal léegi joxaat nañ ko góor loolu wàññi li mu jigéen ñi ci gouvernement bi kon foofu Sénégal dafa tardé ñuy ñaax bu baax loolu suñu plaidoyer constant la ñu ngi waajal nag évaluer ñu nag yeneen association de femmes COSEF mm. dix ans loi sur la parité bi pour wane ne parité bi fan la ñu yóbbu waaye fan la ñu dellu ginnaaw ak tam fan la nga xamante ne ni lañ war a gën a liggéeyaat pour que parité bi gën a yóbbu jigéen ñi ci kanam encore une fois yóbbu jigéen ñi ci kanam nag du yóbbu jigéen ñi pour jël palaasu góor ñi déedéet yóbbu jigéen ñi ñu dend góor ñi liggéey li nga xam ne moom la ñu war a liggéey ci réew ñi comprendre ko